Papa. yor mani mani mani mane mu lew ñu suñu liggéey yor lu bari te wu sax fi gàccal ba ñuy bàyyi muy neex neex neex neex teral la sa xol fay cey koor koor daal mooy koor rek da ngay sa organe yëpp ay dam dootoo man dara wala xar yi dañu sëngéeme rek dañoo sonn muñ rek bu ma waree ngeen wari rek ndeysaan booy dañuy yëngutu ci koñ bi ruuberu man nag man daal man gis nga waa weñ yi ñii moom war na noo wax ci seeni bagaas yi damay bàyyi ba foo de ñëw ñu dem def ci ñaxtu bu rëy man ak moom ci parce que lii dara wóoru ci téléphone bu bonee nii maa ngi koy doo gis lii dara baaxu ci allo ah waaw eh bébé maa ngi nii maa ngi ci jàmm bu baax maa ngi sant yàlla eh xam nga ni ci yow laay dox non man nekkuma ci dara ci yow rek laa ne fu ma ko teg li nga bëgg la bëgg lo bañ man bëgguma lolu xana neex na eh ba li ngay wax way ba li ngay wax dañu ne ci koor way ah yow ta eh wuy ma bul yeng bul yengal sama jamono yawit amul solo amul solo paa bi mo ngi fi mo ngi ci jàmm ngi yam mo ngi mer bi a part magal dal. mag moom bu xasee dugg ci nit rek mi ngi noonu ndeysaan may gu njëkk gi maa ngi ci maa ngi ci maa ngi koy dajale trois cent mille moom bariwul waaye xam nga dëkk dëgër dëkk waxul dëgg de waaw waaw ma abal la ci lan deux cent soixante quinze mille nan nga koy abbe ci ki may gu njëkk xam nga ni bu matoon jox naa la ko yow tamit baal li nga de allo eh, fi ma nekk dafa amul réseau day suus nii damaa ne ci ay armeer non cimetière du am réseau su ma génnee naa la woo bul insister bul insister may ma ba ma génn ah, man tiituma ci bii jamono yow nan ngay tooge di leb may gu njëkk guñ la war a indil nga naan lebal ma ci deux cent soixante quinze mille kii bëgge na nag ŋàppaaral ni Sonadis bu def ñaari poti meew mbas li taxul ñu naan jigéen jigéen da ngay régler da ngay régler ama jog doxé sama émission man jekk sama def ma yaa ngi ci jàmm alhamdulilah euh, dama la soxla woon tuuti bëgg ñu waxtaan waxtaan ba jàmm la jàmm ju bari la euh, est-ce que dinaa la mën a am ci biir ndax kilifa la dama xaw a yàkkamti nag moo tax wuy ma soxla jàmm la te mag la mënuma taxaw ci mbedd mi di wax ñu may romb di ma yóbbu kilifa la may ma tuuti rek ñu dugg ci biir waxtaan ah d'accord ah d'accord ay ñu dem est-ce que doo mën a jiitu ma topp sa ginnaaw di la xool. non demal. ah kon ñëwal. waxal alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah soo déggee man la waxal alhamdulilah mooy fii nga tok khilafa gaa ngi nii du ñëpp fi tok ya nga ci khilafa gi tay kenn du fi tok kulul man kon so ci toge rek nar nga barkel benen bi souvent sumay doxantu ji di nawali samay cokkeer

dama taxaw di la xol xamni kula ku seras dina am ndawal lu rafet yap wata bo nan ca neex ma dama la bëgg tak ngay sama soxna ndax jek nga ci sama kër gi bëgg na la trop te xale bu yaru nga neex ka nekkal bëgg naa la en tout cas. Euh, papa dégg naa bu baax li nga wax. baal ma bul wax papa ndax li ma bëgg ci yow papa du ko bëgg ci doomam waxal leneen. kon mën naa wax tonton. non non yow maguma la yow maag yow ñoo maas bu dee sikkim bii ngay gis man damaa jëxam rek damaa jëxam moo ma jàpp mais xale bu ndaw laa ñoo maase. nee ma classe de guerre. classe de guerre. ah Ada accord eh, dégg naa bu baax li nga wax. Hmm. ci fi may ñëwee rek moo nekk que tak takk bi nga mujjee wax. Hmm. xam naa ne dafa dafa tel te dafa gaaw ndax nit ki avant ko tak il faut ngeen Hmm. te xale bu baax nga tamit ndax su doon sa ñu la lenen lu xam lu ñaaw lay doon wala ñu fekk si la taf-taf ci li nga bëgg pour ne dañ lay mbaraan mais gis nga ni nga waxee ak man teg ko ci yar ak teggin en tout cas samay kàddu jiw naa la te yaa ma mën a jàppale d' accord. d' accord ci yow. dégg naa la. léegi numéro bi defal ma ko fii ma ubbil la ko téléphone bi nag day rëcc dënn ah dégg nga ko dung dung dung. defal ma numéro bi fii man façon téléphone yi moom waxatu leen ci dara. day maasul. ah maasul nii la day vivre téléphone bi day rëcc dënn de ah numéro bee nekk nii wuy ma xaaral ma am nu ma def yow mm. ah. gis nga kii. maa la ko jox pour nga jënd ci tàndarma. tàndarma rek dix mille francs. li ma yéene ci yow ñëwagul. bu ndog bi ñëwee nu muy mel. waas yeewaay sàmm. wuy ma. Mhm. li muy koor a dama naan la au revoir mais xam nga koor mënuma la wax bisu di yàq sama koor ah. dëgg doon koor gi nga dégg bisu yu bari. dañ dem ma gunge la. xam nga souvent damay bëgg xale yu mel ni yow nii eh kaay lan la ni nga ñëw damay noppale ji noppale ko amul tey ñëwa kaay fii ah. tooga dogal sama chaise chaise ba xilaafa gi xilaafa gi waaw tey dag may rey mbaa ma rey la xale bu ndaw fi toog léegi te waxoo ko dara toogal fii yow fii ngay toog sa façon jikko yi ni ma ko bañee géngente yi lan la waa as yow li nga def noo ko mëne lan laa def wan ma sama ordonnance fii nga ne ma yor ma dërëm ah waaw yoruma dërëm nga yëg 10 francs di jox xale bu waaw ah, léegi da nga may contrôler ba su may joxe nga may topp. topp ma dama cee yam su ma ci yamoon du ma ko gis <laughs> yow doo nit sax fii nga ne ma nga ne amuñu lu ñu ndogoo ba fëgg say poos. man sama yoon newul ci ndog wóorloowu ma la. dëgg. yow yow eh, bu may waxat ay del wax dëgg man sama yoon daan na ci sa ndogu man maa la woorloo ki woorloo na la jox nga ndogu. loolu nga may tontu. boo amee lu la métti moom nga koy waxal. ma la jéppee. maa la gën a jéppi yow. dama nga noppale ko ci loolu la nga waxoon. noppalootu ma. fi lay tok ak samay cioro dee fi nga xam ko koy def. sax fi garab yow. fo as merde. ah kuy sa yaay nga meree. fo dekk nga no tuddu nga mere ah mer gu bari ñak la. <laughs> xale bi ma andalon dego li ma don way bi may ñew ah kay la batma ñaan ma sama bay boy may ma yow de bu dee yow rek labat goo de yow. ci laa nekk nii de. nii nga def nii. moo yóbbu dix mille labat bi. wóor dem na ba dañu laa tere sax nga wann sa tiflit kon waxatuma laa njëgën naa yoo